bon gars tey damay ñëw waxtaan ak yéen si ñaari argument yoo xam ni deux personnes yoo xam ni génn nañu am ay kàddu yu ñu jagleel li nga xam ni moom moo di sénégalais yi kenn ki menace de mort la kenn ki menace intellectuelle la quoi noonu laa ko mën a jàppee après di ñu gën a débattre si loolu pour ngeen gën ko comprendre mu di Moustapha Diakhaté at Wally Seck Wally Balago Seck mais nañ commencé si Moustapha Diakhaté malheureusement. kon tey jii nii gaay yi dañuy bëgg nga dénoncer gars yi dañuy bëgg nga wax si li nga xam moom lu bon li mais malheureusement duñ la jàppale fan la lay jàppale boo toogee di xalam nit fan la lay jàppale boo toogee di def comédie fan lañ lay jàppale boo toogee di reetaanloo nit ñi wala di di wax lu bon si nit loolu lañ lay jàppale mais quand il s'agit de défendre notre pays wala quand il s'agit de défendre nos religions sénégalais duñ la may doole si loolu moo tax des fois on demande ndax religion am na doole bi Sénégal mais bon bref waa ji nga xam ni moom moo toogoon am sañ-sañ alxuraan ne kii nga xam ni moom moo di muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mooy gën ci mbindeef mooy gën ci mbindeef koo xam ni yàlla nee na mooy gën ci mbindeef nga tiim ko ngay ne ay wayjurum gënuñu say wayjur nga tiim ko wax kàddu bu ñaaw ne ay wayjuram gënuñu say wayjur te mu leer na Sénégal googu nit ñu mel ni yow normal ni yow am na ñoo xam seen i wayjur ñoo gën sa wayjur seen i wayjur ñoo la gën yow mais ñoo dépensé nga ñooñu nga xam ne ñoo la ëpp suuf nga dem fa nga xam ni yàlla moo ne gën ci mbindeef léegi nag genre personnage yooyu noonu nga xam ni après dañuy toog bëgg a nit ñi Sénégal di jooy di jéggalu naan waxewu ko noonu wala nii lañ ko bëgg wala wala li Sénégalais yi jékki-jékki te mu leer la ni bu doon benn tarixa la ko wax tey jii nii waaye jusqu'à présent mu ngi si tooxi doona bu doon benn tabax dem nañ taal këram dóor nañ ko patati patata mais vu qu'il s'agit prophète nga ay prophète bi mu mën nañ ko wax lu ko nekk ñu indigné wu rek après ñu bàyyi mu sedd mais quand même genre ni yooyu tamit boo leen jëlee di leen continuer teg mu leer nañ ay idiotie rek la ñuy wax wala ay dégâts rek la ñuy wax nga jël leen nga teg leen si télé pour ñu wax li nga xam mu ngi xew si réew mi wala pour ñu joxe seen pensée alors là sites yooyu noonu ñoo ñu tooñ ñoo tooñ li nga xam ne moom moo di sénégalais yi. ba tey waa ji nii jàkkaarloog sénégalais di wax kàddu bii nii gars yi déglu leen baax la muy wax analyser leen bu baax li nga xam ne moom moo di parole bi déglu leen lu mu wax. bu ma yore ni responsabilité ci réew mi uh-huh. Ousmane Sonko du ak fii ak ba muy naan Macky Sall dana ma rey wala mu rey ko su ma doon Macky Sall nekk président de la République uh-huh. man danaa ko rey man xaaral maa gëlee uh-huh. ba mu fi nekkee général saaga généraux yëpp. ba wax ne armée sénégalaise c'est des mercenaires. saaga gendarmerie. saaga police. di saaga sëriñ si ay nitam di saaga kilifay diine yi. Mhm. mu mujj dema dem ba dugg ci bopp nit ñi ne Sénégal dafa état bu Sénégal dafa ragal Ousmane Sonko man su ma amoon responsabilité yërëm duñu ak moom foofu. gëm naa ne état bu Sénégal taxawaay ba mu waroon taxaw ci Ousmane Sonko defuñu ko. Mhm. waa ji nee naa comme ni ngeen ko déggee si vidéo bi Macky Sall dafa waroon boom Ousmane Sonko pour muy clair loolu la wax Sall. bu nekkoon moom mooy Macky Sall dafay ray Ousmane Sonko bu dee si pays bu am justice li nekk pays bu am droit pays boo xam ni c'est normal pays boo xam dañuy tutale nit gaayen bii nii procureur bi xoolal fa balaa muy pare émission bi jël nañ ko bi yàlla tëj ko kaso parce que déclaration de menace direct en télé nit ñi dégg ko di ko gis mooy maanaam man ma toog télé ne diw danaa ko rey man ma toogtal ne diw dinaa ko rey kooku warul mën a toog di doxantu si mbedd kooku prison la war a dem juste ndax kàddu bi ma laa bëgg ko defee lii mooy Sénégal tiim doomu jàmbur mi nga xam ni maanaam yàlla jox ko bakkanam si te bu fekkee sax li bu fekkoon sax dafa basé wu si quelque chose boo xam ni nit koo xam dafa demoon di rey wala nit koo xam dafa jël ay bakkanu jàmbur wala nit boo xam ne dañ ko war a arrêté wala nit boo xam ok loolu mën nañ comprendre mais dafa basé wu si benn thèse boo xam ne nit ki dafa doon wax comme waxinu Sénégal parce que contexte dafa am solo les paroles dafa am contexte fii laa wax guerre sénégalais yi naan da nga war a choisir mais bon bref ne Macky Sall soit mu ray ma wala mu ray wala wala wala wala wala wala wala ma ray ko mais loolu ñaata sénégalais ñoo ko wax sénégalais yi nga xam ne instant ñu ngi dégg xiif xam lan la ñuy wax Macky Sall soit mu ray ñu wala ñu ray ñu wala ñu ray ko loolu la mais loolu waxin la. loolu waxin la léegi dafa am loo xam ne waxin la at loo xam ne si xol lay génnee quand tu vois sa Moustapha Diakhaté toog naan Macky Sall dafa war a rey ki nga xam ni moom moo di usmaan Sonko kooku wax dëgg fa yàlla mu nekkul lenn lu dul albafta nekkul lenn lu dul seytaan nekkul lenn lu dul nit koo xam ni xoolal moo catégorie Macky Sall lañ leen war a boole. léegi nag lii mooy Sénégal mooy maanaam dafa am ñoo xam ne dañuy sañ a toog wax ay wax yu garaaw ay wax yoo xam ne condamnable. après nga gis leen ñu demande ndànk seen kër toog nga gis ay nit ñoo xam dañuy kaas seen droit ay nit ñoo xam dañuy wax ni dund bi dafa cher ay nit ñoo xam dañuy wax ni dañu sonn ay nit ñoo xam dañu dañu dañu xiif ñu ne la yow boo xiifee xam ma tëj la prison mais quand il s'agit d'une personne boo xam dafay ñëw di défendre Macky Sall na Macky Sall dafa war a ray mu nekk benn affaire boo xam ne en fait crime la nit ñi di ko bàyyi muy dox alors la pays boobu noonu war nañu xoolal ndax baa ngi dox quoi c'est bi nga xam ni euh, euh, maanaam justice bi nga xam dafa équitable quoi justice boo xam ne pour ñëpp la fi nekkal si laay def transition dem si Maria Sène Maysa Bigué Maysa Bigué Maar Wally Balago Seck bëgg a wax ak bu tuuti képp koo xam ne en ce moment là dem nga si Wally Seck di ko mere si li mu wax yaa ngi tooñ Wally Seck xam la moo tax yaa ngi koy tooñ parce que une personne boo xam ne tey jii nii yaa koy jox mu lekk en fait bu doonoon yow du lekk une personne boo xam ne yaa koy suivre bu doonoon yow kenn du ko xam une personne boo xam tey jii nii bu amee sañ-sañ taxaw devant sur scène ne sénégalais ay petits cons lañu mooy la majeure partie ñi nga xam ne ñoom ñooy si salle bi ay petits cons parce que lan parce que ay nit ñu ngi dee ñi ñooñu ne ko conseil bi du am ñi ñëw dañ koy boycotté mu wooy leen petit con il vous a carrément dit que ni xaalis jalal na ko lu nekk xaalis moo ko ëppal solo foofu li nga xam ni moom moo di dignité te tey jii nit ki bu jëlee li nga xam ni moom moo di xaalis teg ko au devant de toutes ses priorités nga bëgg ñëw ne waajooju noonu mu bañ a def li nga xam ni moom moo di concert am concert bi nga xam ne ay sénégalais ñoo koy dundal conseil bi nga xam ne ay sénégalais ñoo koy jox day woyaan sénégalais di ko jox tey jii nii lu leen si fekk yéen la tey Wally Seck mën na toog ne sénégalais yi bis bu duggee si li nga xam ne moom moo di problème bi dina am ndaat saay quoi waale boo duggee si problème bi lan mooy xew en fait yow boo mandoo si li nga xam ni moom moo di problème bi da nga waroon continuer mando ni takk ci nii dërëm. parce que tey ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ñoo lay boycotté ñoo ñoo lay dundal il faut nga xam loolu ñoo lay may xaalis ngay dund saa ñoom doo dund saa ñoom doo lekk saa ñoom doo wëy view yi ngay am surtout bi sax ñoom ñoo koy seetaan ces petits cons là tey jii nii ñoom ñoo tax nga nekk li nga nekk te waale il faut te rappeler que ni tojoo fenn papa chaque fois moo wax la ko tu es local tu es un artiste local le ngay ñëw sénégalais yi di dee. parce que bu dee artistes nigériens yi nga xam ne ñoom nga teg sa mappandoo ñi nga xam ne ñoom ay 2 millions la ñuy laal saa yu waxee benn kàddu rek 2 millions la laal si xaalis bu fekkee ñoom nga teg mappandoo bu seen dëkk di toj bu seen dëkk di xar dañuy génn def li nga xam ne moom moo di sollicitation génn wax li nga xam ne moom moo di seen naqar sa mettre avec le peuple artistes yooyu noonu moo tax artistes yooyu noonu xoolal fu ñu xataraayo gars mais malheureusement yéen amoo leen jikko boobu noonu parce que artistes yooyu noonu dañu xam lan mooy respect du mais tey jii nag munoo yaakaar sénégalais ba pare yàpp leen tey munoo toog nga ne sénégalais ay petit con la ñu sénégalais yooyu noonu at ku ci mënti doon ki la jéppeeg ki la bëggaak ki sopp la ki sopp koo koy dem seetaan sa vidéo moo tax ngay générer xaalis si YouTube la majeure partie ñoom ñooy yóbbu seeni i gel wala seeni i jabar wala wëree ba yóbbu si sa concert malgré eux pour bëggeel seeni jabar ñooñ ñoon tey nga taxaw woo leen petit con mais loolu mënuñu bett Wally Seck parce que c'est pas la première fois ay nit di dee nga def li nga xam ne moom moo di concert heureusement sax bii France nga ko def mais bi sénégalais yi dee si li nga xam ne moom moo di gaal bi prise de xaw xawma ñaata sénégalais gars yi def ko li nga xam ne moom moo di deuil national Wally Seck da nga tëgg concert da nga tëgg concert biir Sénégal ay nit dee ay bakkan rot nga tëgg li nga xam ne moom moo di sa concert kon tey jii nii ñun ñun ñooy tooñ suñu bopp parce que ñun ñooy jox valeur yenn nit yoo xam ni. ñu ñaan chanteur du peuple ak chanteur du Sénégal ban peuple peuple bi nga xam ne tey moom moo retourné si peuple boobu di leen wooyee petit con peuple boobu nga xam ne nee na moom bu duggee si li nga xam ne moom moo di problème bi lépp ndaat saay quoi parce que moom chef de bande la quoi moom dafa am mafia am quoi. avec ça après li si gën a métti mooy day ñëw defaat li nga xam la même chose tous les sénégalais qui se qui se sont dem toppaat Wally Seck waali ah, waali waali waali comme si que ni ngaan bi la quoi. nee la ngeen gëm seen bopp ku si nekk sa ndey dafa liggéey ku si nekk sa ndey dafa liggéey booy yi nga xam ni dee nañu booy yi nga xam ni dee nañu si injustice seen yaay si ñoom la yaakaaroon comme yaay Wally sekk nu mu yaakaaree si ay doomam comme sama yaay nu mu yaakaaree si man comme yaay diw nu mu yaakaaree si kooku mais tey jii nii yéen bu fekkee yéen a jël diw Wally Seck teg ko au some wala au delà des personnes yi nga xam ni dee nañu. Wally Seck ñëw ne leen moom dafa bëgg a mandu si ay nit yu dee même bu fekkee on respecte son opinion mënoon na continuer tëj gémminam continuer def li nga xam ne moom moo di concert am mais quand tu arrives devant les sénégalais di ñu wooyee petit con di ñu wooyee petit con alors là tu as exagéré quoi bro te petit con yooyu ngay wax nag dinañ la woon ñoom ñooy ñan at ak fan la. léegi nag booy yi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ñëw di woo gars naan di duwul manifestation manifestation yi au moins ñoom ils ont eu le courage taxaw wan la li nga xam ne yow loolu nga waroon def automatiquement bi sénégalais dee tu devais annuler li nga xam ne moom moo di concert boobu defoo ko gars yi ñëw di la rappeler li nga xam ne moom mooy saw ref mais malheureusement malheureusement de voix boobu nga nekk nag tey sa voix dafa off sa voix dafa off tu es petit tu es minable da nga tuuti léegi amoo looy def nag amoo looy répondre nga ñëw naan li nga xam moom moo di sénégalais kon yow xaalis moo la gënal ay dundu sénégalais junniy bakkanu sénégalais di dee ngay continuer def li nga xam moom moo di sa concert rawatina di ñu saaga di ñu wooyee petit con heureusement quand une personne n'a plus d'argument day saaga loolu mooy li nga xam ne loolu nga def parce que tu as été petit tu es minable te tu seras toujours local xam nga la moo tax parce que t'es pas un te pas un artiste tu réfléchis pas comme un artiste doo superstar te bro link du noonu link du noonu de wasalaam